billahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al azim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim monsieur le président damay santaat yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala di julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang-sang yi di gërëm sama ñaari waajur waaye di gërëm sama borom kër monsieur le président ñoo ngi dalal monsieur le ministre de la justice fii ci pencum ndaw réew mi may sant di gërëm sama collègue député yi nga xam ne coono bi ma fi dund ak naqar bi ma fi dund ñu ngi ko doon compatir ak man di ko séddoo ak man monsieur le ministre de la justice am lu la yëkkati tey ñu di ko rafet rafetlu di la wan ne incha allahu rabbi dinañ ko voté yow ak sa ay collaborateur waaye ba lañ cee dugg dañuy gërëm le président de la république de tous les sénégalais son excellence monsieur Macky Sall ku bëgg ak ku bañ nga doon citoyen sénégalais te yàlla def na mooy sa président de la république kon ñu ngi koy sant di ko félicité di ko sant di ko félicité ci comportement am ci bëgg réewam ci am yërmandeem président Macky Sall tey ñi fi nekk di coow naan ñoo ko dàq ba mu retiré candidature am c'est faux président Macky Sall en 2018 dafa bind livre ne man du ma def lu ëpp ñaari mandat kenn ku ci nekk di coow mu ne la bëgguma ko ci wax bëgguma ko ci def parce que ci liggéey lañu nekk ñu raf di saluer ñi nga xam ne moom la gënee réew mi ñu ñuy dem di dem di dem ba heure ba mu ko war a wax jotee mu taxaw wax ne du ma nekk candidat waaye terewul ñu ñi nga xam ne dañoo nekk ay élu nekk ci suñu gox bëggoon nañ mu nekkaat suñu njiitu réew waaye nag mu nekk nit koo xam ne homme de parole la nit ku fonk kàddoom la ku bëgg réewam la koo xam ne xoolul dara intérêt euh, euh, personnel ñun ci suñu bopp di ay député war nañoo xoolaat suñu bopp xoolaat ci président Macky Sall ñenn ñi nag laay waxal ndax Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne boo waxee benn ñenn ñi yokkal la ko defal la ko mille te fekk demewul noonu ñenn ñi war nañoo xoolaat seen bopp ndax tey coow li bari na ci article 37 article 87 article 87 ñenn ñi ko fi coow yëpp seen intérêt personnel moo tax ñu di ko coow ndax koom mee tax seen salaire a leen ñor sénégalais ñoru leen moom mi sénégalais yi ñor réew mi ñor ko du nekk fii di coow heure liggéey la toll dafay liggéey ñuy xamale nag ñoom ñi coow ak a wax coow rek lañ man ak manipuler ak yàq deru nit beneen bi ci topp monsieur le ministre président Macky Sall nekk homme de dialogue mu woote dialogue ñi ñeme dëgg dem ñi bëgg intérêt réew mi nekk ca ñu di ko rafet lam ca jël yëpp ñun ñoo koy saluer waaye ma jàpp ne parrainage bi sax dafa ndaw ndax sénégalais yi nekku n'importe qui ba ku jóg war leen a mën a jiite dama da man sama xalaatu bopp man am njaay ñii bi dama ne woon bala ngaa war a mën a présenté wu candidature nekk président de la république du Sénégal li ci gën a néew nga da war a nekk maire da nga war a nekk koo xam ne am na foo jaar am cursus bu baax bu rafet nga xam réew mi xam li fii metti xam coono yi ñuy jànkonteel waaye ku tëb rek lay cëpp ne man candidat la ak sa comportement ak na nga war a mel te ay xale nekk ay ndaw nekk ci suñ suuf war a màgg war a xool war a jël ay idole ci ñun loolu lu jar a seetaat la man pour man dafa légère sax dafa gën a dafa oyof war naa gën a diis beneen bi ci topp nag monsieur le ministre de la justice seen responsabilité la yéen ñi nga xam ne yéen a yor parce que kum neex taxaw man violence physique bi sax dama koo jëlale waaye violence verbale bi député mën a taxaw waxal moroomam loo xam ne nii du dëgg du yoon maire man a taxaw waxal moroomam tey man ma nekk soxna yor sama borom kër yor sama njaboot sama boroomu député osé taxaw man ma ëmb nekk en état de grossesse waxuma weq yi waxuma dóor yi mais sama moroomu maire taxaw ne borom këram nekkul ne moom moo jur doom ji mu ëmb loolu mu nekk loo xam ne du effacé monsieur le ministre ngeen taxaw di ko seetaan monsieur le ministre président Macky nekk président ñu taxaw ne waxal ko rey nit beneen président du ko wax mais fii ci suñum réew war nañoo xolaat comportement doomu aadama yi te monsieur le ministre de la justice am ngeen ci part de responsabilité préparation force bu am force bu diis waaye lu neex waaye wax su la neexee nga taxaw jéggalu say morom jéggale la jéggale la mais sénégalais yi ci ay nawle lañ sénégalais yi ñoo ñu gën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 Téléchargez l'application sur Apple Store ou Play Store avec TapTapTime, tout est révolu.